Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Xayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité Safko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loole ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba Xayra kon yaakaar naa foofu laay gàttale yemal samay kàddu. maa ngi maa ngi ci kaw. munoo jëm ci dum la lay ana waaja kanji. waaja nga na la toog moo sol lu weex la la ngay seen. Ah, ñëw na ñëw na na la toog. kenn non moom xam nga xam ma li ma lay wax. xam nga li may wax toujours moom xamul xamul làmb xamul làmb ci mag bu ndaw. na gaa yi di di leewaatoo rek loolu laa koy wax des fois damay toog sama kër dinaa mënu ma naan dem lamb ji man kan ak kan ñooy bëree lamb yoo xam ne boobu ba léegi xamoo koy bëri mooy sol sa yére ñëw rek barke Serigne Touba kon moom lamb la fi nekkal gis nga ay tay bi dégg lamb ji tey bi mu bi mu ko ku baax bi mu ko woowee Ama Dia boole ko moom ak maam ñaaw ma woo téléphone ne ma daa am benn femme bi dëgg lamb tëngeej loo ci xam man ko dimbali ko jàppale ko adduna mu solo ku la woo loolu ci man def defal ñun ñëpp benn lan du dëgg te kuy dëgg lam bëgg ko la jàppale ba nga sponsor kon maa ngi ñaan yàlla daal yéen ñii ay ndaw ngeen yéen laay gën a ñaanal ngeen dem ba li ngeen bëgg kon li may ñaan yàlla mooy ñu gën leen a jàppale jërëjëf yow sëriñ ak ak ñu ngi dem ci li nga xam ne moom mooy grand combat bi grand combat bi nag ngeer moo koy bëri ndeysaan mu ngi woon ginnaaw waaye Karbala la ja mu ñu moom la ñu jàkkaarloon ndeysaan waaye nag lii da drapeau monsieur le maire la. ok drapeau monsieur le maire 18h52 minutes. ndeysaan grand combat de la soirée. diggante bu Zapp. ak Karbala. affaire Serigne. da ngay joxe per per Nguer moo ëpp yaram moo sut. ndax moo ëpp doole est-ce que moo ëpp doole waaye loolu bu ñu laalantee léegi mu leer léegi lay leer ndeysaan ñoom ñaar ku nekk jiital pied gauche ndeysaan diggante Karbala ak Ngeer Ngeer bu Zam Karbala ak Ngeer bu Zam Karbala mooy wala Karbala mooy woon kanam noonu bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex Serigne ñoom ñaar lu ñu def mu daal di neex père yàgg Badou ma bu ñu xeexee mu neex bu ñu mu neex lu ñu def day daal di neex ndeysaan ñoom ñaar ku nekk pied gauche nga jiital ndeysaan ndeysaan moo takk fulaar gu verte ga ndeysaan tegtale ngemb bu verte ba moom ngeen waral loolu père ndeysaan loo gis ci làmb la te lu làmb la loo gis ci làmb rek tegtal la wallaay ndeysaan bi ci des mooy muy lan lépp lu mbër mu mag def dimanche bu dimanche mbër mu ndaw andi ko gis naa léegi alpha deux andi am dënd waaw su ngeen gisee règlement yi di génn waaw dimanche par dimanche loolu moo ko andi ci Balla Gaye la ko gisee keroog bi Modou Lo ñëwee tegtale morceau bu verte saa yi ñëwee ci gis ko gis moo tax bala Gaye tëb bi mu tëb bu ëllëgee mbër mu ndaw dina tëb et pourtant Balla combat Balla bi après dimanche bi si toppat gisaan naa xaw ma kan moo ko indi nag waaye gisaan naa benn xale indi ko nënd tey moo tax xaw na xiin yi benn lam déet ah, moo tax ñoom Balla yi dimanche di nga gis beneen xiin lamb nañ leen bàyyi xel ndeysaan ñoom Modou ñoom Lac de Guiers ñoom Omar Sène ndeysaan guerre saba ngi ni teg Tapha Tine ndeysaan ñoo leen di nuyu bu baax a baax guerre a ngi ni teg di ko déglu moom kan moom moom moom geer geer day gudd ba ci yàgg mu been waaye loolu Modou Lo rek la jik ndeysaan muy jàkkaarloo xale bu xale bu muy jàkkaarloo xale bu doy bu agressif la jàkkaarloo moom tey moom geer xale bi mbër la moom moom moom Karbala dafa sérieux il est sérieux bokkul ci xale yi dàq mobilisé dëgg la bu jógee xale dañ koy topp xale dañ koy bëgg nag looloo ko boolee xale yi duñ topp ku ñàkk fayda xale yi duñ topp ku mënul dara hmm. ndeysaan muy combat bu am solo na ci carrière am moom Karbala bu daanee ngeen bu sabe bu mu mën a yóbbu eh, ndax dem ndeysaan ma ne ndax Karbala day dem looloo jëral la ca per ma ne su ma doon moom du ma xaar ngeer grand contre petit la bu ma doon moom dinaa ko déplacé mu juum ma jóg sëñ Fallou Seck ndeysaan sëñ Fallou ñu ngi koy kontaane borom tab Serigne Touba xayra kenn du moom Serigne soxna Jaara ak soxna Bana sëñ Fallou ñu ngi lay bu baax a baax waaye ndey baneel la yow yaay Serigne Fallou borom fëtë yi lu baax ngay wax kenn du moom lu baax ngay def moo mën ñëpp yàlla si jàmm yàgg nañ ma bàyyi ak moom laa ilaaha illallaah su ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak moom dañ leen di bàyyi far fos nag na ma gars yi bàyyi ak moom fos lañ lay bàyyi ak moom bàyyi baag badu eh door eh. na ko attention eh, eh, eh attention na ko wóorul wóorul wóorul kawo eh eh laa ilaaha illallaah waaw xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu léegi Karbala ak guerre Karbala li ngay xeexee baaxul. day jël avertissement day jël avertissement ba. day jël avertissement. day jël day jël avertissement. jël na ko ñëwaat. fu mu fu mu toll nii nag fu mu toll nii nag moom avantage. moom avantage si lamba ji bu ko neexee mu cons. bu ko neexee mu bañ taxaw bu ko neexee ne mu géré. waaw non loolu bëgguma ko sëriñ. bu ko lan li Karbala bëri léegi baaxul. loolu baaxul mën nañ ko kaawoo. dañ lay kaawoo wóorul. Eh. man maa la wax loolu. guerre daa xaw a diis. Karbala ak guerre dafa ci moom daa dis si moom waaye nag Karbala faalewul faalewul ponkal ndeysaan jàmbaar la man naanaan la ma ne bu ko déplacé wul yëngutu bëre moom si bëre moom si mais ni mu koy cadré accès bi mu bëgg a bëre baaxul waaye père père père xam ni ngeer mbër mu am la et mbër la moo xam ne tey bu ko nekkoon mën naa toog siège di ko ki nga xam ne moom mooy Karbala 2009 la bëre ak ambulance Thiès moom ngeer 2009 la ko ambulance daan Thiès. loolu yàgg la wax loolu. samay 15 ans waaw ba muy bëreeg mbëru bool bi. ñu jox ko Ousmane Diop mu daan ko. ñu jox ko ki nga xamante ni mooy mooy Ousa Sow mu daan ko. mu ñëw Dakar. doog fee bëre a ak ki nga xamante ni mooy mooy caatu booy bambara. mu daan caatu booy bambara moo ko njëkk a daan muy 15e combat am ci la mataan may ambulance ci la ginnaawam laal tuuf. dem daan ko. muy 2016 2017. mu jël armée bu benn barak daan ko ay Iba Mar Diop jël bu rëy ba jël bu ba ñu ñu une semaine après ñu andi fa recours xañ ñu ko attention xeex xeex ndeysaan waxoon naa la Fallou Boubacar daan na ko ndeysaan waxoon naa la Fallou Boubacar xaju ci yéel ne waxoon naa la Fallou Boubacar xaju ci yéel dafa mën bëre daan na ko jël bu rëy nañ ko bàyyi xel ndeysaan volume ak doole du benn mais père Cabral nañ ko bàyyi xel non dama ni man li ma jaaxal mooy Karbala Karbala nax ngeen.